koli koli manjo bupani panika jo esuke pare pare dinki baltampa burunga bori mendi men pale la konyani koli koli ye jae esuke pare pare dinki baltampa burunga bori mendi men pale la konyani koli koli ye jae salaamaaleykum sëriñ bi. maaleykum salaam na nga def. sant yàlla alhamdulilah. tur bi naka la. Lamine Diallo. Lamine Diallo tey fan la nekk. ñu ngi tëbi euh, région de Ziguinchor la nekk. Mhm. département bi nekk Bignona. Bignona. alors nu mu tudd euh, ci tëbi benn village bu tudd tëbi quoi. seen entreprise bi nu mu tudd. SKDF. SK SKDF. mais lan ngeen di liggéey yéen. Euh, ñun ñu ngi ci mbay en fait ñu ngi ci mbay ñu ngi ci lépp ñu ngi ci tracteur ñu ngi ci. Euh, pisciculture ñu ngi ci arboriculture ñu ngi ci maraîchage. ñu ngi terrasser tamit ñu ngi terrasser am nañu ay engins am nañu ay tracteur tractopelle bulldozer gradeur ak euh, poclin. d' accord ñun bi ñu fi ñëwee li ñu marqué mooy euh, sa tool bi dañ fi fekk ay serre te du lu nu min trop ci zone bi hmm. loolu ci mën a wax ci serre yooyu. en fait alhamdulilah serre bi bi ngeen ñëwee ñun au départ dañoo nekkoon ci culture plein champ donc bu ñu nekkee ci culture plein champ dañoo gis ni ki. Euh, rentabilité bu ñu soxloon ci culture plein champ duñ ko doon am léegi après par a suite mu am ay techniciens ñu conseillé ci culture sous serre ñu expérimenté ko te biñ ko expérimenté alhamdulillah li ñuy am ci vingt sur quarante moom daanaka production boobu noonu moo ëpp un hectare. kon dal fer bi dal mo upp doole rendement. ci moo ëpp fop fop fop bokut sax. d'accord yow kon fi fek naa nga def ci bir fer bobu lu melni ni ban tamaate nga ci defo euh variété Cobra la def ci tamaate. Cobra bi ñaata weer la defo euh def na 4 mois. 4 mois ci bir fer bi ci bir fer bi. plein champ bi 4 mois mi ngi ko ne di produire ba léegi produire ba tey. da nga arrêté wala arrêté woo. en fait dama ko arrêté. yow ya doyal rek man ma doyal. <laughs> poivron bi moom ñaata weer la def. huit mois la fa def huit mois la fa def moom fekkante na fii ak beneen poivron wala ci biir plein champ beeg bi am déet. moom bi moo jiitu plein champ bi waaye plein champ bi jeex na ba noppi. Mhm. moom maa cycle am jeex na te moom mu ngi produire tamit.

dañuy mais ñun ci kaani lañ gën a yëngu. d'accord di ngeen defar pépinière di jaay wala def pépinière di jaay te tamit kaani bu ñuy jaay yëpp maanaam lolaza bi la def. ok te waa Agri-Sud ngeen koy jënd. ñu koy jaay. macha allah donc euh, lolaza la ñuy def lépp depuis daaw ba ren moom lolaza rek la ñuy fekk nañ ci tool bi tamit nga def fi benn bassin. Mhm. bassin boobu lu ko waral. bassin bi au début c'était pour euh, ndox. Mhm. maanaam am benn réserve eau bi nga xam ne saa suñu pompe paane rek. ñu utiliser bassin yi ñu mën a irriguer. Mhm. waaye yàlla daa def ci biir loolu noonu tamit ñu am beneen idée bi nga xam ne dañuy defaale ay jën. Mhm. parce que stock ndox mi nii baax na lool waaye boo ci defaatee jën plus lay nekk ci lañ def ay jën. Mhm. jën yi tamit dañ koy jaay waaye tamit. Euh, nu mu tudd engrais la tamit ndox mom non engrais la mom lañuy jël diko arroser walé ban système d'irrigation ngay utiliser euh système goutte à lañ def. da ngay indi engrais wu araw yini sanni wala yini nii ngay liggéey yow. ñaar yépp lay def. Mhm. damay def araw bi damay def kii euh, nu mu tuddu bi jaar ci goutte à bi. da nga def fumier tamit. fumier organique tamit dama koy def. da ngay def élevage fi élevage amna ay nak ay xar amna ay ginar euh, amna ay kay amna tamit ay autriche. kon fi mu ne nii ku la bëggoon contacter. Mhm. am ci produit yooyu mu intéressé ko ci ban numéro lay woote. 77 670 68 37. boobu mi ngi dox ci whatsapp bi. mu ngi dox ci whatsapp bi waaw. ku bëgg formation tamit est-ce que fii mën na ko. alhamdulilah ku bëgg ñëw formation ñëwal formation ndaxte les portes sont grandement ouvertes. ñun dañuy formé en même temps dañuy téye ci biir formation bu ñu gisee ni ki nit ki la personne elle est compétente te bëgg na liggéey bi mën nañ koo retenir mu liggéey fii ci tool bi. jërëjëf jaajëf. Vale, la coña